Euh, mun a Gueye Bambalo waxtaane euh, aéroport euh, Blaise Diagne ouverture bi nee nañu 7 décembre la li mu mën a indi ci wàllu koom ci la ñu gën a waxtaan mhm, donc comme ni nga ko waxee aéroport boobu mu ngi war ubbi incha allah le 7 décembre donc bu ubbee nag ba le le 8 décembre à 12 beneen aéroport bi nga xamante ne moom mooy Léopold Sédar Senghor dafay tëj. donc aéroport moom nag mu ngi nekk à 47 kilomètres du sud-est de Dakar moom ci région de Thiès la nekk donc aéroport bi euh, du point de vue stratégique nit ñi dañ ni dina gën a suqali tourisme bi nga xamante ni Pape Cheikh moom lañ doon waxtaanee keroog parce que dafa jege Petite Côte bi donc ñi nga xamante ni dañuy ñëw euh, di di di xool si di visiter si dëkk bi bu ñu wàccee rek bi mën gën a jege li nga xamante ni moom mooy. Euh, um, Mbour ci bi nga xamante ni waaw voilà Mbour nga xamante ni touristes yu bëri bu ñëwee foofu la ñuy nekk. aéroport bi nag Pape Cheikh ñu ngi koy xayma construction bi entre deux cent trente cinq cent soixante quinze milliards de nos francs donc moom lañ ci investir. donc mu nekk aéroport boo xamante ni ñoom mise nañ si bu baax comme ni ma ko waxee pour positionner Sénégal mu nekk ci cinq pays yi nga xamante ni ñoom ñoo gën Euh, moom la ñu gën a ràññee si ñi nga xamante ni ñooy accueillir touristes si Afrique mais aussi euh, en terme d' emploi parce que booy xool zone boobu ñu ko def yëpp dafay am après ay convention yoo xamante ni dañ koy signé ak mairie ak commune yi pour jas ak aux environs. Mm-hmm. xale yu nekk am ah, ñu liggéey parce que tey juste ba ñu ngi dégg ci ñu ngi dégg ci journal bi ñi nga xamante ni ñoo fa dëkkee ñu ngi kaas mm-hmm. euh, ne war nañu leen jël liggéey fa. Mm-hmm. effectivement peut-être commencé guñu recrutement yi temps yi maa ngi gis ay sites yu ñu ngi def appel à candidature mais. comme ni ñu koy def projet yu mag yu bëri bu ñu koy commencé. Hmm. dafa am ay quota yoo xamante ni population yi dëkk ci si si zone boobu ñoo koy kii. ba ah, pare loolu mooy yoon loolu mooy yoon. ba pare aussi dañ koy gis sax des fois su fekkee ay projet yoo xamante ni dafa am lu muy indi si dëkkin bi maanaam ñuy indi saxaar wala pollution wala yooyu en contrepartie dañ leen di exiger ñuy tabax li nga xamante ni moom mooy ay hôpitaux wala ay école pour mu nekk benn compensation boo xamante ni dafay nekk diggante population ak entreprise bi nga xamante ni day day nekk foofu mais aussi li ñu si mën a xalaat aussi mooy wàllu transport bi dina ko laal bu baax parce que xam nga dafay gën a densifier li nga xamante ni moom mooy flux parce que fii nii on avait juste petit trajet si biir Dakar mais léegi da ngay génn dakaar dem bi li nga xamante ni moom mooy région bi nga xamante ni moo di Thiès mais non toujours pour adosser ko à ce projet donc def nañ benn euh, trajet boo xamante ni TER bi euh, train express régional bi dafa war a chaque fois di jóge aéroport di dem euh, ah, fi nga navette lay nekk biir mm-hmm. Dakar donc trajet bi ñu ngi ko xayma ci 45 minutes donc mais terre bi nag moom moo commencé gul daw parce que moom ñu ngi naan mun na egg fii ba bien vrai que ñoom ñu ngi def le maximum pour que mu commencé en 2018 en attendant nag nit yi dinañ commencé di demal seen bopp di ut ay solution palliative est-ce qu'ils vont pas mettre des bus à la disposition des, des gens bi ay bi aussi c'est une mun na nekk parce que xam nga ñoom terre bi moom moo waroon di desservir aéroport bi hmm. donc loolu moom la euh, programme Dramé maintenant comme affaire bi pareegul man xalaat naa ne sax peut-être mën nañ def ay convention ak Dakar Dem Dikk parce que Dakar Dem Dikk léegi gis nga am nañ ay lignes yoo xamante ni day jógee Dakar dem ba ay Mbour voilà ba ay Podor donc ay tarif yoo xamante ni euh, vraiment abordable na ba pare mhm. léegi dañu climatiser seen bus yi et tout donc peut-être en attendant terre bi di di di fonctionner wala di commencer di daw mhm. ñoom dinañ ut ay solution palliative yoo xamante ni peut-être dina permettre ñu assurer que loolu donc aéroport bi nag Pape Cheikh li ñu si bëgg a wax yëpp je pense que dañuy bàyyi ba dem gis ki nga xamante ne mooy seen directeur monsieur Mbodj parce que moom la ñu euh, prévoir mu gën ñu expliquer déjà li nga xamante ni moom lañ ci investir éventuellement yenn changement la am parce que boo nii si image vraiment Euh, nekk nañ ci normes internationales yi parce que vraiment c' est euh, <coughs> au même standing que les grands aéroports. Mhm. donc am na nag investissement yu am solo yu ñu si def am na tam ay changements yu bëri yoo xamante ni dina ko indi si mode de vie des sénégalais et éventuellement si économie bi parce que. Il y, a, vraiment beaucoup de services yoo xamante ni c'est lié à, à la mise en place de cet aéroport là mhm. donc euh, dañuy bàyyi ba incha allah semaine prochaine ñu gën a gis ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor projet boobu. voilà par contre am na ci ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi kaas sànq ñu ngi koy wax euh, ci euh, journal bi ci suba ñeen ñu dëkkee ci alentour yi mën nañu mën nañu ñëwaat ci élément wu journal boobu dégluwaat lépp. daanaka mbooloo mi takku woon lool jóge woon ci dëkk yi di càmbox kasu xaj kacalit leen tulli ba sun bagala ñoom ñëpp dikkoon ci site bi soriwul lool aéroport international Blaise Diagne bu nekk ci jas nekk ci commune bu Kër mu Moussa askan wi day fippu nee nañ dañoo nemmeeku ne gis nañu aéroport bi léegi bu ubbi waaye du benn ndaw bu dëkk ci dëkk yi wër aéroport yi fay liggéey. ay républicain lañu ndax dañu ne aéroport lañu fi def pour Sénégal yëpp ak Afrique ñu nangu ko toog nag ci biti ñu dàq ñu ñu ne ñu du ngeen fi dëkk ñu déplacé population yi ñuy ànd ak lool ci naqar boobu bi ci gën a metti xam ngeen ko ñun ñëpp ay africain lañu ñu jël sa maam sulli ko jël na dañuy déplacé aéroport bi sulli sulli suñuy suñuy niiw yóbbu ko du lool dul ñu neex mais loolu nangu nañ ko ndax aéroport bi waaye ki joxe lépp nag war a am lépp nag waaye ñun ñu joxe loolu yëpp ba pare. autorité yi AIBD raxasu dal di dem taw fee ñu ne géré tuñu bi ñoom bu ñu tegaloon société bu bees bi cahier de charge na ko lii la ñu waxante ak population bi protocole d'accord baa ngi nii ma yore ñun ñoo ko xaatim wane naa ko sànq ci nasaraan kon ñii fi ñëw door a ñëw nii duñu ñu def li ñuy di li def. ñun la ñu waxoon ne jën pour ñu liggéey ci aéroport bi waaye man ñun ñii kenn jëleguñu. léegi aéroport baa ngi bugg a ubbi kon mun nañu ñun bu fekkente ne nii lay demee ñu bu ëllëgee waaye aéroport bi ñun gisuñu ci benn koom-koom gisuñu ci benn avancement ñun dañu am gàcce am naqar ci biir Sénégal. aéroport du Dakar fu mu nekk nii dañ koy fermer léegi ñooñu nga xamante ni ñoo fu doon liggéey ñooñu ñoom la ñu war a indi fii ñuy liggéey ci aéroport bi loolu ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba suñu bakk ni lañ ci askan wi nee nañ daañu amal yeneen i génn tey ñu ngi sàkku ci nguur gi mu taxaw seeni i faj ko. voilà mu nekkoon euh, ñaxtuk euh, ñenn ñi nga xam ni nii askan la u dëkkee ca boori aéroport euh, Blaise Diagne aéroport bi nag di waaj a ubbi coow li bëri ku ne di waxee boor duñ ci sori dinañu dem fi lekk semaine prochaine itam seeti ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk aéroport bu bees boobule en tout cas ak lu mënti am ñun dañu bëgg dëkk bi gën a taaru lépp loo xamante ni am na ci dëkk yu développé yi dañuy ñaan mu am Sénégal mais juste Pape Cheikh peut nit ñu patient parce que peut comme que aéroport bi commencé gul mën na am recrutement yi des na parce que aussi faut pas nekkul aéroport boo xam ne dafa bees rek hmm. donc dafa am aéroport bu existé ñu koy transféré di ko yóbbu feneen y a un personnel déjà existant certainement dinañ dinañ yokk mais peut-être que dañu eggagul foofu mais aussi bu ñuy wax aussi ci changement de vie impact ak population bi jege aéroport bi nekkul rek ci recrutement direct il y a yoo xamante ni dafay am nettoyage dina am commerce dina développer les routes vont se développer donc conséquences yi mun na nekk ci ci de façon très indirecte mais mu bañ a nekk ay recrutement Euh, yoo xamante ni dañ lay jël nga liggéey ci aéroport bi mais mën na am après bu bu commencé ba ba mu effectif dina am yu bëri ñoom dinañ ko sentir parce que lu toll projet bu toll noonu mënul nekk foofu te ñoom du leen sukkali c'est impossible d'accord intéressant merci en tout cas pour li nga indi daañu seeti euh, njiit yooyu et ñu gën a euh, indi ay explication jëm ci aéroport bu bees boobu lee di Blaise Diagne yéene kaay yu bari d'ailleurs bu weesoo suñu mm-hmm. journal ak sujet bi ñu ci def ak Maimouna Gueye Bambalo ci la ñu xëy tey l'observateur indi na ci ay détails comme on dit duñ ci sori yi allez lire euh, di ngeen comprendre yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni peut-être ñoom ci seen gëstu euh, dañu ko seetlu loolu l'observateur moom la xëyee tey gis ngeen ko noonu tuddee ko remous euh, dans le ciel sénégalais toute la vérité sur le processus de transfert Léopold Sédar Senghor Blaise Diagne guerre entre SHS et AAHS le vol vide de Iberia et l'incident diplomatique entre Dakar et Madrid pourquoi la compagnie Corsair ne va plus assurer la desserte Dakar Paris Dakar donc toutes ces ci euh, l'observateur bu tey bi ñu ngi lay ci gërëm bu baax euh, Maimouna Gueye euh, Bambalo